والصلاة والسلام على عاصم ابراس عبد النبي والرسول بلا شقاق ولا وسواس وعلى آله وصحبه القادة الأقياس ورضي الله عن سيدنا وسندنا وسيد الأكبر والكبرية الأحمر والقد المكتوم والكعب المحمر سيدنا أحمد التجاني سلف الهدام الجاو الهام ورضي الله عن سيدنا وملجائنا وحبيبنا ووسيلتنا في طريق التجاني الذي حدث قدسية سياسي دي على جمر النالي ومن اسمه القريبة الأكبر لطائفة الحمرية في المنارين قادمة الحضرية مولاي ياسيا محمد البشير عمر أتى الله عمره وحيته ونصره وفقاتنا مدة طويلة مع سيادة البدن كل من قال عنه وبعض mbokki jullit yi fi daje mbokki taalibe yi gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan ngërmaanal yàlla bu mu dañ mukk di wàcc ci Cheikhina Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ñaanit ngërmaane yàlla bum dañ mukk di wàcc ci kër bi bu sell bu tedd fa xaw su jaanoo si jalaajo wax ko mbokk yi ñëw nañ fi ci ndigal bàyyee koo bu sell ba ndigalu xalifa Cheikh Mouhamadou Bachir di bokk wax mu yàgg fi lool te wér moom ak mbooloo jabata si jalaajo wax lii ne yoxaat dara bi yëpp di jiital ci nuyoo bi waa dëkk bi di jiital ci nuyoo bi ci waa dëkk bi imaamu dëkk bi dëkk nag foofu nuyoo imaam nañu nga dëkk dëkk ku dëkk ci dëkk ba dana julli di nuyu borom dëkk dëkk yi soo ko nuyoo borom dëkk bi nañu nga képp koo xam ne mu ngi ci dëkk ba wa tabaarakallaahu ñu ngi nuyu mbooloo mi fi daje yëpp di xaasal kenn hit ci nuyoo bi

ndax lu mel ci dëkk bu mel nii ak borom bu mel nii lu ko dajale du caaxaan ni ko Cheikh na Tidiane waxee Seydi Ibrahima la waxee ko Seydi Basiou Kéwaan waxee ko wax jooy rek dafa doon fa tabaarakallaahu xam nga xam nga kañ bu ci gox bi am kañ bu ci diine ji ndax ndaw sa karaw gi amul dara lu weex waaye gis nga plat taaroo dara xit ñu ñi fi toog lu yàlla ak yonent kon loolu yàlla moo ni ko gars yi waxee sa la bu Seydi Laaji ndaw si dara ko képp ku mu wóolu muy lijaasa jox la ko xam nga loolu ndax Seydi Laaji man point te it borom nga bala mu laa jox dara dana la natt ba xam ba xam ëllëg si ëllëg la laay doon. moo tax ñu jox li jaasi ñëpp ñëpp kenn ku ne rek am na lu ko yàlla cëralee ci xarinaam ci mbiram yàlla ba yàlla tàggat ay roxu ba ñëw ñu nangu ko sa maam ci ñu la bokk waaye lii nag yaay buntu bi loolu moom amul ku koy neex amul ku koy naq ndax gannaaw yàlla. yàlla boole nañu ci xamante loolu ni lool xam nga loo xam ne sax desul wax ci mbooloo waaye daal yéen yàlla dimbale la xam nañ cawarte ci yow sa bis ñu jàpp mu mel ni suñ bis mu jaral lu ne fa tabaarakallaahu yéen yàlla dëggal nuyu nañu sa baay Baye Fall ñu ngi lay nuyu di nuyu sa mag Baye El Hadj Modou di nuyu mboolem njabootu Baye Baye El Hadj Maam Soxna fa tabaarakallaahu di su rafaaw yi nga xam ne ñu ne ñoom ñoo bokk jotaay nekk suñu kilifa seen mbaax ak seen bëgg si dara jabar ndaw rek moo sabab nit ñi ne bokk yi jotaay bi téye kàddu waaye nag boo toogee ci jotaay dajeeg ñoo xam ne yéen a bokk lu ngeen bëgg mbir mi day mel ni kenn ku ne dafa ne kaas ci ndox da naan noonu rek la demee waaye seen kàddu yi jaar ngeen nekk suñuy mag nekk suñuy sëriñ ñu ñu nekk taalibe ci yëpp seen kàddu yi doy na mënuñu ko teg benn kàddu am na loo xam ne natt laay do ci nit wala nattu laay do ci nit waaye kàddu yi fi jaar dafa doyoo rawatina yow ak bi Cheikh Ahmad Tidiane jàng bu jàngee ko xol jàngee ko yéene jàngee ko bëgg téere maamu si daal ñoo ma sëñ bi fa tabaarakallaa fa taxawaay rafet na ndax comme ni ko waxee faam ci yoon woon nekkoon nga koy itti yëpp ñëw ngir jëmmal bis bi loolu gërëm nañ ko sant nañ ko ndax fii yow it soo fi toogee ñu ñu toog dara ji du rëy la ci ñun fa tabaraka la am programme sa mag ñëw boo ko yor programme bi ñu ko dara ñu xam bëriwul jotaay yu mel noonu kon ñi nga xam ne suñu mag lañ ñu ko dalee Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane ibnu Seydi Mamoud Taye yal na yàlla dëgëral la ñëw ci Mouhamadou Bachir mu Seydi Taay yal na yàlla dëgëral la ak Seydi Ibrahima mu Seydi Moustapha moom fa tabaarakallaa mi ngeen mi ngeen ko fi daaw ñëw toog waaye dafa amoon gàtt waxoon naa ko fi ndax sax ko gàtt gi sax foo naa dugg naaj kon fa tabaarakallaa ñooy ñooy suñu kilifa ci jotaay suñu waxoon ne wax waxal ñu wax ñoo tax ñu wax suñu waxee ne suñu waxoon ñoom ne ba tànk bi jeex ñu dem. wallaay xoolal bi dañ ko def te du ñàkk. billahi sidaa yi ndax sidaa yi dafa am loo xam ne boo ko def foogee ba wa atina rabbi tawfiqan li wittatina min. loolu la ñu am lii mën na ci ñàkk gindee ca ñaan gam ñaan mënoo cee génnee lii fu ñu dajee taw fi kii mag la jaay loolu ko wax ñii nag ñooy suñu kilifa ci jotaay tey suñu waxoon ko micro bi indi wala ñu ngi leen di nuyu nuyu xaas rawatina ko Cheikh a fi si yaay ko daw te aaj ma ne fu mu ne Rasulullah ñun yàllaa fay ne ak unité bi si gaajo ba amul leneen di nuyu tàggikat unité bi ku mel ni Ousmane Mbène Fall ak kii boobu moom Amadou Bassirou Touré xam nañ ko fi suñu bàyyi moom nga nële ñu ngi koy nuyu tabaarakallaa di nuyu Ibrahima Ndaw mu ngi noonu mbéy ko kaw rek moom tàggikat unité bi la borom Kira Zouhab di nuyu fa tabaarakallaa Mohamed Dramé tabaarakala moom it borom xasida la ñi nga xam ne mu ngi bàyyi ko ci maam borom Touba radiyallahu taala xam ñoom ñëpp fa tabaarakala dañ ñëw ñëw it nag dëkk yi nga xam ne ñoo wër dëkk bii te teew ci jotaay rawatina nag fa tabaarakallaahu dëkk bii nga xamante ni ñëpp génn leen ñëw bokk ñu baax kon nag sëriñ bi wax ji bëgg bëgg dafa am luñ délante ak Moustapha ak kuréel bi mu àndal muy bis bii nga xam ne ñoom dañ ko jagleel kenn ci nitu yàlla yi te nitu yàlla buy nitu yàlla xam nga kooku mu Cheikh Ahmadou Tidiane. di nuyu Aliou Dramé. tabaarakallahu discours bi rafet na. kam kam rek mo lay joxe mu ñu ko lool te ne yalla deugëru ak mo la ci fi bi nga am rek ñu mansoor yo ko kon ci dara ja ko sey ci daayira yi ñu ne ni ma ju ko tawal ka ba ni ko bu ci waxe ñun ñepp fo rañ ne ko jàng ñu ñepp sa da yalla su ko defé nak bis bi dafa am borom muy Cheikh Ina Ahmad Tidiane moom lañ bëgg a waxtaanee xam naa ne li ñu bind nag dañ koy xaaj ñeenti xaaj jël benn bi ndax dafa guddi kan mooy Cheikh Ina Ahmad Tidiane soo maamee ko mooy xawsun muhiitun waxam wi kullu martabatin li awliyaay kiraami xadatahum bi kooku mooy Cheikh Ndiakhou Mody Tidiane nee na Cheikh mooy xawsu xawsu la maqaamu xawsu Cheikh moo di toog xam naa dañ ci mos a ñëw ci discours nan la jotee maqaamu xawsu muhim la mboolem xeeti wilaaya Cheikh Ndiakhou Tidiane di kër la waxaa wi kunu martabati moo làq mboolem ci lu martaba martaba yi nga xam ne li awliyaa yi kiraam mënu yi nga xam ne dañoo teg mënu yi nga xam ne naa amoon ci moo ko làkk képp ku a waxtaanee ki kama kaana seydi wujuud sallallahu alayhi wa sallam zeydi anbiyaa caalaat ne maay sagiwu lillahi comme ni sama maam yonente bi nekkee sama awliyaa sama anbiyaa ki ñu moo waxoon ne innal fuyooda التي تفيد من سات السيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها سواد أنبيائه وكل ما فاد وبرش من سواد أنبيائه تطلقها ساتي ومن يتفرق هذا القرآن من نصحة العالم إلى نفسه شيخ موغر فايدوي يببي تي يالا يونتي موغر نتبي يببي تي يونتي يونتي يونتي lii bëgg ci yonent bi man Cheikh maa koy dëkk bi maa koy tasaare ku nekk man la am sa cër ki ñu bëgg a waxtaanee muy Cheikh naa Tidiane moo waxoon laa yasrib waliyun wala yasqa ila min bahrina min nasati alimi ila natrusu nee na amul benn waliyu buy naan ñurut man cheikh sama géej gi naan soo maana sarabu wa sahyu li umumin akabirin mu jejo habibi ta wallahi xanaa ñu ne woy bëgg ci foofu la ko gisee nee na sarabu naan wa sawil ba man di uma bi akaabiri ñeel na way mati akaabiri aftaay waaye bi ñu naanee ba man ni nag bu caaju xali bi taal la seex naan dakar na ca gaay for di naan waaye ma ne wallaay gën naa ne ahmad yii ci lay gaay kiñ bëgg waxtaane muy Cheikh naa Tidiane moo toogoon ak ay saabam ne la ma mel ak yonent bi ruux yi war seen i jur ak saa ruuxu tumitu muslimal abkar alayhi salaatu wasalaam waaye man sama ruux man Cheikhu Tidiane waroo yi tumitu abkar wala aarif nee na yonent bi mooy tëbb bépp yonent nabi yu man mooy tëbb bépp waliyu am wala abkar su ko defee waxtaanee woon nañ fi ci Cheikh Tidiane askanam. ña ko jur ba ci yonent bi caxaat bu njëkkam topp ko ca loola ca seex na mu jàngee ak atam ya ak ban di la mokkale alquran waxtaan ca ña ko jàngal ak ka ko jàngal ka ko jàngal lam tuddoon gént gis ak lam lam lam tafsiroon alquran ba ba yàlla suñu borom wan ko ci kiima ko waxtaan seex gannaaw mu dem uuti xam-xamu yër sàkku ci xam-xam waxoon nañ ko fi lii ma bëgg a def mooy lii borom bi daan wax baraatul islam dama leen a fàttali rek dañ ko di wax takkulus su ko defee waxtaanoon nañ fi Cheikh na Amar Tidiane laxas gi la usoon gannaaw ba nga xam ne am na xam-xam bi ko yàlla jox muy xam-xamu yër mu laxas na dem uti xam-xamu yër waxoon naa leen Cheikh jam daje ak ñooñu lañ ko dëxal ñu toppoon loola ba Cheikh jaar ci ay nit ak ay gënam gënam waxtaan nañ ko ci ay discours ñu toppoon loola ba Cheikh lan gis lan gis Makkatul Makkatul Mukarrama ak wali yéen fa dajet Madinatul Munawwara wali yéen fa dajet ñëwaat Tilmizan lan fa dajet ak Cheikh nam daan waxtaanee ak nam daan jàngale ak nam daan tafsir Alquran mu waxtaan ak fatwa bi ñu daan def gars yi di jógee ci kaw bu ne ñëw di laaj Cheikh na Ahmadou Tidiane loolu yëpp def nañ ko ci ñetti ci loolu ba daaw ma waxtaan ci tariqa yi jël juróomi tariqa tuddoon naa waxtaanu ci tariqa yooya ñàkk ko jox waxoon naa leen ñàkk muy daje Seydina Muhammad waxtaanoon naa yéen ca loola ba jiitu am paadu yoo ci misaal ba Cheikh am ci dundam ñeent fukki at ak juróomi at sëriñam di mujj a jëflanteeg di Seydi Mouhamadul Kurdi dal di faatu moom lu ko nuyu faatu ba ca déwén sa Cheikh am ñeent fukki at ak juróom benn Cheikh ñu xawal ko ne ko sa mbir ñëwul file laxasal nga dem tamit sa mbir ñun ñu ne ko sa mbir mu ngi praat yu abi Sonko ak praat yu national wax naa la ne Cheikh toxalu jógee ci misaan jël xasatu abi sonkoro ak salaala salaala ay dëkk yu jege la ñoo fa tabarakallahu wax naa la ca place boobu ñu wax fa la dajeeg Muhammad ñu toppandoo la Cheikh dem ba dajeeg Muhammad xayaanan mooy yàq xasatal laa ci diiram ñeent fukki at ak moom Cheikh ak juróom boo demee ci hijriya ba mu jox la mille cent quatre mu jox la junne ak téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn maamam su ngeen fàttiwu foofu laa yeewoon das dajee gi Cheikh dañu woon maamam ñu war a dalayaat foofa barkilu ca wax sax mais comme dajeeg maama la ko na seex avant seex maama du ko jox tariqam waxoon naa ko ci daal maama avant mu ko jox tariqam yi seex wax naa la ne la jaar na ci juróomi tariqa wax naa la maam ne ko baal lii ñu jox la nga ñëw ma jox la man li ma lay jox moo gën lii nga yore te ñooñu it lañ yore yore tamit moo leen ko jox. Cheikh Naar Tidiane ne ko ah xanaa damay tegal loo xam ne mooy ëpp garanti yii ma yore. wax naa la maam li mu ko waxoon ante ya ante ya yaakaar naa su ma juróom wax naa ci juróom-ñaari xarit yoo xam ne dara loo xam ne yonent bi moo ko taxawal gannaaw nag yonent ne kañ ko kañ duura Cheikh na ko dama bëgg a garantal ma sama bopp waxoon naa la it juróom-ñett yoo xam ne yonent bi garan garantaloon na ko Cheikh Matidia mujj gi Cheikh na ko dama bëgg a ku jël télé xam yi nga garantal garant yooyu waxoon fukki garant ak juróom ñett su bi garante ko di faqa li Cheikh ba mu gisee yonent bi ci at mooma ca la seet ubbeeku mu ngi ko gisee bi an raxaa bi ay ni ay ni rahmati ñett satan fa saara ay ni ummat Cheikh Ahmad Tidiane gis yonent bi bi ay ni ci ñaari bëtam ya kan la gis xëy na rahmati jëm xéwal gi jëm yéen maa ngi tëmal rasul ya asatan ci ñëpp nelaw dafa yeewu fa saara la mujj moom Cheikh xëy na ummati bi sange kay si daaj ma doon yàlla ma ne ko wa basirati yaa rahmaanu siratan أفضل الكتاب حتى أزايد yàlla moom talaatuhu maa bu saal moom it ci bët yi nga xam ne mooy bëti bopp bi ci la gisee rasul Cheikh na Tidiane yonent bi da ko baaxal léppay sa sëriñ yi ndax baaxal bu mu suñu wax léppay sa sëriñ yi wasar bakku wa ana man yonent bi murabbi ka maay sa murabbi maa lay yàq wasar ka maay sa sëriñ afar maa gën a baax lépp wa anta yow Cheikh waarisi yaay ki may doon mu asbi yaay ki ma doy mu war di yaay sama doom àqal sa dëgg ñu koy xam ci lu benn yataa yataa yataa lii waxoon naa la man dajeeg Cheikh moom yonent bi yonent bi wax na li Cheikh laaj yonent bi gaarloon na ko jox ko ay garante waru ko lu bëri waaye yonent bi dafa seet na ko fataraka an tajamia ma taqasta min jamii turuqi cheikh baxal mboolem tariqa yi nga jàpp boobu wax naa la jàpp na juróomi tariqa njëkk mu daje yonente waaye daje naa sëriñ yu bëri ñoo xamante ne jëlee ëpp ci ñoom tariqa moom Cheikh na Ahmadu Tijaan gannaaw warlu yooyu yëpp yonente bi salaay salaam moo seet na ko wàccal nag nga jëriñ mi ndeef yi cheikh yonente bi am na lu ko garantal am na lu ko warlu li ko yónni fi indi nag moom laa bëgg a waxtaan. Cheikh dal di wax naa la bu nga am ñeent fukki at ak juróom-benn at ba nga xam ne gis na yónent bi moom Cheikh naa mën a tijaani yónent bi daf na ko unzil li faatati xalqi wàccal nga jëriñ bi def yàlla yi ci waxtu boobu loolu la ko yónent bi wax Cheikh yónent bi salaay salaam dal di ko digal digal turi xam ba muy tariqab yonent bi salaay salaam tariqab yonent bi dañuy wax borom xam-xam yi nga xam ne dañ tënku ci tariqa tijaaniya dañuy wax ne tariqab yonent bi salaay salaam alquran àndoon na ci ndax léppay tariqa bi ñu ko tënk ci benn baat li tubayina li naas ndax suñu borom moo wax ne wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi maa unzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruun yàlla moo ne ilayka ci yow yonent bi zikran alquran li tubayyina pour mu na ma leeral moom alquran linnaasi ñeel nit ñi bi mën a leeral linnaasi baatuñu tukki yi ba huit bi daa lay jox da lay jël laam laam taranta tey bu ngeen di jàng ci wasifa astaghfirullah asima la si laa ilaa ilaa wa ay xayu fanweer yoon nga jël laam bi jeex nga jël taag yi jël nga lii nga jël tuub taa boobu kasaan la ci sifu tey ci biir téeméeri yoon nañu jàng astaghfirullah salaatu ala nabi téeméeri yoon laa ilaha illallah téeméeri yoon mu ñetti téeméer soo demee ne ca wasifa ko laa ilaha illallah moom it téeméeri yoon la muy mu ñëw taxawee taxaw kon gën nga mu nekk ñeenti téeméer ci taxaw di ñaar la nga jël di yaa ak baa ñaata fukk ak ñaar jawtu kamal su ñu dee wasifa fukk ak ñaar lañ ci nun gi cinq la juróom fukk la su ñu dee wasifa fa tabaarakallaahu juróom fukki salaatu faatiha lañ jàng kon baatu nit bii na ngir dafa ñëw alquran ngir namal leeral wala dafa ñëw ngir leeral tariqa bi leeral la nit naa si ñeer jullit ku dugg jullit doo tey kon lii moo tax mu nangoo jël bàyyi la mu yor Cheikh ñu dugal ko fi dëri bu dëri lan la astaghfirullah di jël téeméeri yoon bas astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ak lan keroog ba mu tëjee yonent bi ba yonent bi gis ko wax naa la na tariqa bi baatini tubi yi naan moo tënk mbir mbir ak wasima xamoo si nga saaju ma dafa am lu ko indi xam naa dina discours dina ko sa ñuy mbokk jaww kamaa dafa am lu ko indi musiba wi tare avant jaww bu kamaa laay laay la laa duñ ko jàng teg yoon ñaar teg yoon rek ko jàng astafurlah sima duñ ko jàng fanweeri yoon teg yoon rek ko jàng yow am nga ko sëñ boobu jaww bu kamaa ñëw salaatul faat yi duñ ko jàng juróom fukki yoon téeméer yoon rek ko daan jàng ba ca war a ñëwee nag ñu jël astafurlah asima ma juróom-ñaar fukki ngir dara jë ngir ngir ngir jege bi jaww ji mu des fanweer. ñu jël laay laay la laa gi nga xam ne ñaar téeméer loolu ñu dagg téeméer mu des téeméer ñu jël salaatu faati ci benn mooy ki nga xam a bëri li mu julli ci man. xool yi ñu xataat. dara wax ne soo ñaanee wala kat da jëlee nit ñi dem toog ñaan te julloo ci yonent bi ñaan yàlla ko nangu. nee na ñaan gi yàlla nangu mooy ñaan gi nga xam ne nga ñaan bu ci yonent bi soo ñaanee yàlla ba pare dañuy ñaan ci diggante asamaan ak suuf soo defee nag salaatu ala a def ñu soog a ñaan gi yéegal ko ci kaw. yonent bi nee na ki nga xam ne moo gën a torox. ci ab nit bakkan bi gën a ci bakkan bi mooy ñu tudd ma fa yow tudd ñoo ci man sallallahu alayhi wa sallam yonent bi a na fi mu tudd yow ma fa ne julli woo ci man gën a toroxam ñu ne ko ki gën a nay ci ni ñi mooy fi may tudd te kooku julliwul ci man yonent bi saa sam dana wax ne foo xam ne tudd nañ ma fa ka fa ne julliw ci man baal kan ne mu ngi mel ni kuñ amatoon jëmale ko aljana mu wër tudd dugg sama loolu jaamu jaamu yàlla kon fu tudd yonent bi yàlla na jaam bi ci yonent sallallahu alayhi wa sallam bi ne képp ku julli ci moom yow ba julli ci moom dañ bind sa diggante ñaari sa diggante ñaari bët muy sa jëmi dañ ci bind ne baraatu mi ne ni faax wa baraatu mi ne naax dañ wax ne dañuy dañuy dañ lay dëncal sa safara dañ la dëncal yi ci naafeq bu jëlee ci moom nga jëlee ci moom salaay salaam bu ko tuddee nga jëlee ci moom yonent bi nee na yow mi nga xam ne da nga julli ci man baal xale fa ma dëkk ci ay nit fa lay dëkk nee na julli ci man moo gën a màgg moo la doon mën a jaamu yàlla ci ay naaf loolu donte sa farata yi ci ay julli donte sa farata yi yonente bi nee na yow nii dëkk doon ci man ña nga xam ne dañoo doon xare ba sëy fekk na ci ñu dee ñooñu fa ñuy nekk yow xeexal yonente bi nee na borom bakkaar te wóoloo kenn sa bakkaar yi yaakaar nga ne yow boo dee dem safara dëkkil julli ci man foo mën a doon boo mos am dañ ko effacé ba mu jotaay nee na ku bëgg a ku bëgg a dolleeku te doo wàññeeku dër julli ci man nee na boo dëkkee julli ci man yonente bi nee na jàngoro dina dugg soo bëggee julli soo dëkkee julli ci man loo wax mu sax nit yonente bi nee na luy métti sa cër julli ci man teg ko sa loxo teg ca prendre métti mu set julli ci yonente bi rek ko wërsëg su ko defee nag salaatu faati doole gi mu am wa marratan waahidatan tuqarrahu minhaa saa tukaffiru sunuuba wa tazid min kulli tasbih wa sikr wa qaasid kulli alfi wa min kulli duhaa ومن لازما مرة في كل يوم معا يموت مسلما بخير الله صلاة الفاتحة تيات ابن بابا نه benn peru salaatul faatihi dana kaabara sa borom bàkkaar nee na benn peru salaatul faatihi mooy tolloo lépp lu yàlla bindi sàbbal yàlla wala mu siikar lu mu mën mu tolloog benn salatu fatiha juróom benn junni yoon loo mën a sikkar rek benn benn salatu fatiha mooy maanaam benn junni ca la sikkar nee na képp koo xam ne taxoo nga di jàng benn benn salatu waaw nga jàng benn benn yow moom dee ci kifel bu wala ngay dee bu fi ngaa ñor boo dee jullit ngaa ñor doo dee nekk yi yonent bi ne bu bëgg sa ci safara suñu woo jahim wa maratan min jahimin fityatun yawma alqiyamati min xayri yaatu nee na képp koo xam ne bëgg nga sa njot nekk ci safara suñu woo jahim ba doo ci dugg yonent bi nee na benn benn salaat faari c'est su boo ko dóoree benn tar doo dugg safara tiyaan bu baax mooy yonent bi nag lii lañ ko jox a jox muy astafirullah salaatu ala nabi moom Cheikh na Tidiane ñu jox ko diiram ñeenti at Cheikh ne ci loolu nga war a nekkoon tariqa Chalatiyya te cosaan diiram ñeenti at yaa boo xoolee waxoon naa la ñeent fukki at ak juróom benn ñu ci ñeenti at ñu ñaata at mu juróom fukki at ci xam juróom fukki at nag ñu ëndi ko laa ilaha illallah kon sëriñ bi dafa xaw a guddi te ñu tëgg laa ilaha illallah rek ba ko foofu beneen yoon bi dalee fa ndax lu xaj ci cin li waaw lu duuf ci nawet nawet bi dafa duuf nag waaw nawet bi duuf na lu duuf ci nawet xaj li cin li jàngkat yaa ngi fi te mu ngi a guddi waaye daal tabaarakallah salaatu ala nabi lii lay njëkk jox Cheikh Tidiane si diiram ñeenti xat ba ñeenti xat ya mati fa tabaarakallahu Cheikh ci dundam mu xam juróom fukki xat soo xoolee ca Idriya ba ak ñaar téeméer ak téeméer day julli ak ñaar téeméer Cheikh Tidiane dégg nga ñu wàttali ko muy laa ilaaha illallaah ca ñeenti hadiya gannaaw ba nga xam ne jox nañ ko astaghfirullah ak salaatu alaa laa ilaaha illallaah nag liñ ci bindi xaju fii waaye mbir mi moom mosante ko la rek la fa tabaarakallaahu Cheikh dal di mottali ca bopp xam kon su ko defee ñu ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp li fi jaar doy na sëkk liñ bi doon fii te dafa guddi te wax dëgg yàlla ñu ngi am feneen fi mu di nag mënta waaye nag ci yoon yi rek lañ ne di sàkku ci ñëpp ñaan ñu ñaanal ñu yàlla ñu am dëgër dëgër yoon yi ñu nekk yàlla na ñu man ban la leen ci. moom moo ko nag ndam dem si jaraaju wax kon gërëm nañ jotaay bi sant nañ jotaay bi rawatina kër bii fi teew ñëpp Cheikh Ahmed Tidiane Mamadou Bachir Seydi Ibrahima Ndaw suñu rakk ñëpp gërëm nañ sant nañ lépp jub na lépp rafet na wa tabarakallah yeneen fekkaat yu bëri waaye Fane gërëm nañ bu baax gërëm njaboot bi yëpp tabarakallah li ñu wax doy na ndax dafa guddi te daanaka boo ko toppee rek dafay xaw a ñëwaat leneen di bàyyi xel foofu rek incha allah bu ngeen ko toppee woon ca askan wa topp ko ci juddu ga topp ko ci fi mu jaar ba liñ ko jox ba tey ñu indi leen astafirlah asalaatu ala nabi lu jub ci yàlla la lu jub de ñàkk xam-xam la ak gàtt xam-xam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu